ngi lay ñaan nga abonné nii rek nga koy defee eh. mooy noonu ngay seen noonu ahousubillah bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammad ibni abdullah kon muy continuer lam la waxoon démb ci ku bàyyi ab ci jàpp moo xam farta wala sunna la waxoon na la ci dara démb moom lay continuer wax la it ngëneeli jàpp ngëneeli jàpp maanaam yi nga xam ne daal yuñ sopp la kuy jàpp mu ak moom mu tàmbalee ci wa in dakarta neem fàttaliku nga sunnatan sunna ba la suruux gannaaw ba nga tàmbalee fil wacc ci xar kanam kastin saaxatin min niki saraxndiku fala rujoox kon di tuk dellu min qabli tatmimika njëkk sag matale wala sa Eh, tamama moy fi motali mana matar rek yu tammi mu tet lakin laakin ya fata fataayu lakin laakin euh eh, khad ata dikna fi fii daaga ci loolee xulful ulama wuuteeg borom xamam ya fata jams tams na budé da nga liko ab sunna ci japp ba mana da nga don japp di japp ba ca biir nga fàtte ne am na sunna boo tëpp dégg nga te ba ngay fàttali ko ne sunna bi kat fente nga ko tëb nga ko fekk na nga tàmbalee raxas xar kanam maanaam daal ba ngay fàttali ko sunna ba fekk na nga dugg ci cëri farata ya loolu rek la bëgg a wax kon nee na bu boobaa doo delluwaat di dëppaat di dem def sunna ba déedéet da ngay continuer sam japp ba japp ma jeex nga dem def sunna bobé nga nga nga tebon mu jox la exemple ne la ki day japp bam ñëwé raxas loxo ñu ne waaw mu galax ndiku ñu ne waaw waye nak dafa faté sarax ndiku ak firu waaw maanaam bakkan bi mu waroon a dugal ndox mi génnewaat loolu la fàtte nga xam ne moom ba mu raxasee loxo daa di gàllaxndiku daa dem raxas xaar kanam xam nga kon am na lu tëb mooy saraxndiku ak fiiru muy dugal ndox mi ci bakkanam génnewaat ko da koo tëb fàtte na ko ba mu demee ba raxas xar kanam fàttaliku ne ah man de sama bakkan bi dama ko jël te fekk na muy raxas xar kanam wala mu raxas ko ba pare nee na kon bu boobaa bul dëpp déedéet da ngay continuer xar kanam après sa ñaari loxo après euh, masa bopp ba dem ak dikk say nopp say tànk njàpp ma jeex nga doog a dem naf daal di def sarax ne ko ak fiiru boobee nga tëboon muy bakkan boobee nga bàyyi woon waaw nee na noonu nga koy defare bu dee da ngaa bàyyi ab sunna te ba nga koy fàttaliku fekk na nga dugg ci cëri farata ya bu waa da ngay continuer bu njàpp ma jeexee nga def cër ak donte nag nee na loolu borom xam-xam yi wuute nañ ci foofu it li nga fiy déggee mooy bu doon ne ba ngay fàttaliku cërub na boobee fekk na booba dugg ko ci cëri farata ya muy raxas xar kon bu boobaa da ngay dëpp defe ko loolu lañ fiy déggee masalan tey bu doon da ngaa raxas say loxo da ngaa tàmbalee jàpp raxas say loxo. ba nga raxasee say loxo ba pare daa di jël sa bakkan nag jël ndox def ci sa bakkan génnewaat muy saraxandiku fiiru xam nga kon léegi tëb nga tëb nga gàllaxndiku laataa ngay raxas bopp nga nga fàttaliku ne ah man kat gàllaxndiku ma kon da ngay dëpp nga gàllaxndiku saraxandiku fiiru continuer waaye bu fekkoon nga raxas xar kanam wala nga tàmbali koo raxas ba pare kon bu waa doo dëppaat da ngay continuer kon lool rek na bëgg a wax bu fekkee daal sunna ba ba nga koy fàttaliku fekk na nga tàmbali xar kanam bu baax da ngay continuer njàpp ma ba jàpp ma jeex bu defee nga def sunna boobee nga bàyyi woon. dee ne ba ngay fàttaliku sunna ba fekk na tàmbalee goo raxas xar kanam kon bu boobaa ah dëpp nga def sunna ba faslun fil fadaa'ili nee na dog bi kon da ciy wax ci wàllu nga ngëneeli jàpp ngëneel nag buñ ko waxee. mooy li nga xam ne luñ sopp la ci kuy jàpp mu sàmmonteeg moom nga xam ne mu def ko sàmmonteeg ñoom def leen moo gën mu bañ leen a def amal fadailun ndal nga ne amma fadailun ndal nga daal ay ngene la ñeel japp fa tasmiya ba ci njëkk mooy wax bismillah li japp ba ci njëkk moy boy tambali nga wax bismillah bismillah kun ngëneel la ci japp maanaam luñ sopp la du farata du sunna boo ko bàyyi woon duñ ne da ngaa bàyyi farata sa njàpp mi baaxul lay def waaye luñ bëgg la loo xam ne bëgg nañ booy tàmbalee jàpp nga wax bismillah wa baax daa nekk na ci gannaaw si waa ko socc naa ngi na nga sonanteeg almasiyata mooy soccu moom sunna la wala kon <laughs> ngëneel la kon ci jàpp waaw sunna la yonte bi da ko daan def waaye nee na socc nag ci jàpp nee na ngëneel la waaw ngëneel la dañu bëgg bala ngaa jàpp nga jël socc socc yi ñu xam nga socc sa gimiñ ba set wecc bu dee mënoo ko it boo demee bay galaxndiku nga jël sa baaraam raxas ci say bëñ sa set loolu moo tax nga gis ñuy def loolu xam nga dugal baaraam bokk ci ko moy jël ndox dugal ci sa bir gimiñ yengal ko wat ko galax ni ko waye bo gisee ñuy duggal sun baram bi ci bir di ci bombu bañ yi pour bëgg mu set lolou luñ sopp la wa kon bëgg nañ bala nga japp nga socc wala sax nga borosu mhm waxut dana nga lim xaslatan ak raxas atat goog dikk na ziyaadatan di e, ak dolli alal ula ci bu njëkk ba fadilatan xibaari muy ngëneel jaamu ga nee na raxas bu njëkk ba xam nga da ngay gis kuy jàpp lu muy raxas raxas ko ñetti yoon li raxas nga gis mu di raxas ñetti yoon loxo mu raxas ñetti yoon xar kanam da ngay gis mu raxas ñetti yoon gàllax ndiku da gis mu def ñetti yoon nee na yooyu boo ca def ñetti maanaam boo ca def benn yoon te mu matale te set rek daal dinay doy daal dinay doy maanaam raxas bu njëkk ba bu setee ba pare matale daal dinay doy nga xam ne moom mooy farata ba yëkki toppaat ngëneel rek la waaw waaye nag bu dee bu njëkk ba situl bu ñaareel ba du mën a ñàkk <clears throat> bu dee bu ñaareel ba situl bu ñetteel ba du mën a ñàkk waaw waaye bu njëkk ba nag bu setee ya cay toppaat moom lu ñu sopp rek la ngëneel lekk lay doon mu ne xaneytu jublu naa nag fil wàcc ci xar kanam wa fil yedde nekk ci ñaari loxo kadaanik ni la tarti bu toftalee doona may ni ci lu nar maanaam raxas xam nga ci xar kanam lañ koy def ak ñaari loxo ci ngay raxas ñetti yoon waaw waaye xam nga bu dee tànk da nga koy raxas benn yoon mu set bu dee lu mel galax ni ko da nga koy def ñetti yoon waaye moom it xam nga du farata waaw moom sunna la kon raxas xar kanam gis nga ne farata la raxas ba nga koy raxas ñetti yoon bu njëkk ba bu setee te ma te dajal te daj maanaam nga xam ne fi nga war raxas lépp raxas nga ko ba pare set na kon mooy farata ba raxas ba nga koy defaat bu ñaareel ba ak bu ñetteel ba kon la bu jublu wax ne ngëneel léegi la ak booy raxas loxo ba ci tikk ba ca ya xam nga moom itam koy def ñett yoon bu njëkk ba nga njëkk raxas bu setee ba pare daj daj nga xam ne daj na cër bi yépp kon bu boobaa mooy farata ba bu ñaareel ba ngay indiwaat di ko raxasaat bu ñetteel ba ngay indiwaat di ko raxasaat nee na loolu nga neel lekk la waaw nga fàttaliku li ma la wax léegi bu dee bu njëkk ba setul moom kon bu ñaareel ba it farata lay doon du mën a ñàkk faaw mu ñëw waaw bu dee set na sax waaye nag dafa dafa dajut cër bi dafa am fu des kon bu ñaareel ba du mën a ñàkk bu ñaareel ba bu dojut it seetul ñetteel ba bu mën a ñàkk nee na it bokk na ci <clears throat> ngëneel yi toftale dégg nga ak bu toftale euh, diggante farata yi ak sunna yi ni mu dugalante nga dugalante ne tegoon noonu ah loolu it nee na luñ sopp la ne wal badu ak tàmbale bil muqaddami ca lañu jiital al muxtaade al muxtaade la di luñ baaxoo fi masi fi masxira si ka ci masaa sa bopp bi ixtisaadi ci ak jublu nee na bokk na ci ngënee lii booy masaa bopp fi karaw baaxoo saxe foofu ngay tàmbalee fi karaw baaxoo saxé moy ci kaw jëbi fofu ngay tambalé dem ba ca gannaaw daal di ñëwaat ba fi nga tambalé won xam nga dañuy bañ buñ nga masaa sa kawar wala sa bop rek nga gis ko xamné euh kawaram day dem ba ca digg bop mu tambalé fa ku lél lool da koy gis tekki wu ne kon boy massa da ngay dem ba sa karaw ga tambalé nga nga mas li ëpp ci nit ñi fi seen kawar tàmbalee mooy kaw jëbi foofu ngay tàmbalee même yow sa kawar bu tàmbalee ci digg bi wala sax amoo kawar sax wala sax côté yi ñu am kawar téewul yow li ëpp ci nit ñi fa seen kawar tàmbalee booy massa sa bopp foofu ngay tàmbalee mooy kaw jëba waaw waaye day soo xam day leel maanaam kii ba kawar ga day sori mën naa dem ba ca digg bopp ba wala mu sori lool dok nga xamne fa lay tambalé sa nga xamne kaw gi ni day lolu jël ben gi day lél lolu du seegi ne boy boy da nga nan man sama kawar ci digg booba la tambalé rek damay tambalé ci digg booba déedéet wa khallilan na nga khalil wala kon mu ne wa xillatul ak neewal ndox ma ala udwi ca cër waaw ala udwi ca ba kadanik ni la tak ni mu yumna ka jital sam day jor alal yusra ci tamon bi xuza na nga japp bokku na ci ngane li neewal mi ci denga neewal ndox mi ci cieur yi mana bëgg boy japp wala sangu farata lo ci def ngay tank lu yam mana man nga tank sat la gi bam fess parce que man nga ci japp kenen japp ci bu dee ak soola mën nga ko tànk ba mu bëri kaneen jàpp ci ñoom waaye yow li ngay as di ko jëfandikoo loolu na nekk lu yam waaw na nekk lu yam waaye bul as loo xam ne ëpp na cër bi waaw loolu lañ bëgg wax kenn du ne la nag ñii lay toll ndax nit ñi tolloowuñ euh, lañu cër ki seeni cër yemoowuñ kii day gudd kii gàtt ki am yaram kii ñàkk yaram ki sew kii rëy yéen ñooñu boo leen bëggee ne nangam masalan lu toll nangam ci ndox ngeen di jàppoo kon boo da nga indi problème waaye kenn ku ne rek dañ naan la xoolal la la doy nga jàppoo loolee waaw mu leer la daal lii ëppul waaw nga xam ne cër bu ne booy as di ca def da ngay as lu yam rek waaye masalan di galax di ko duy nga ba mu fees def ko ñetti yoon xam nga loolu ëpp na yàq na kon del def lu yam mooy wa qillatun maay xalal xuddu ca cëri ba kadaanik ni la taqdimu yum naa ka xalal yusra ca càmmoñ ba jiital sa ndeyjoor xalal yusra càmmoñ pour saa na jàpp bokk na ci ngëneel yi lépp lu am ndeyjoor ak càmmoñ njëkk def càmmoñ ndeyjoor ba doo ko def càmmoñ ba waaw gis nga ba ngay raxas loxo loxo ba ca concee laa bëgg a wax da ngay raxas loxo ba ci concee bu ndeyjoor ba doog a jël loxo bu càmmoñ ba xam nga noonu nga ko defee ba ngay raxas tànk gis nga danga raxas tànkum ndeyjoor doog raxas tànku càmmoñ bu dee nopp nag moom dañ leen di masaawoon doo kon bokk na ci ngëneel yi booy raxas loxo wala booy raxas tànk nga njëkke bu ndeyjoor ba doog def bu càmmoñ ba Lolit, ngeneel la waaw wa xalilan na nga xalil asaabi'al yadayni baaraami loxo ya at man ci lu war wa yustahabu def na ko soppi it fi rijlayn ci ñaari tànk ya waaw xalil baaraami loxo xalil buñ ko waxee mooy diggante loxo yi nga dugal fa sa baaraam ba ndox mu dugg ci biir diggante baaraam yi waaw diggante baaraam yi laa bëgg wax nga dugal fa nga dugal fa ndox ma xam ne ndox mi dana yegg ci diggante baaraam yi waaw ndax boo ko ŋaralewut diggante baaraam yi nga raxas ko ba mu set maanaam ndox mi mën na faa bañ a yegg moo bu kebaloo rek ndox mi du fa dugg nee na loolu bu dee ci baaraam yi loxo dafa war waaye bu dee baaraam bi tànk nag nee na dañ ko caa sopp waaw mooy nga dugal sa loxo bii ci diggante baaraam yi waaw raxas ko ba mu set nee bu dee waa baaraami tànk moom dañ ko sopp waaye bu dee baaraami loxo moom eh, nga raxas diggante ya ba mu set dugal ci sa baaraam yi ba mu set <clears throat> nee na loolu bu dee baaraami loxo moom lu war waral nañ at taxliila xaliil fil xafiifa ci sikkin ba ji fil xafiifa ci aji woyof ji aydan ba tey mina lixiyat ci sikkin ba lal kasifa waxuma bu talba anaytu jublu fil wuddoo ci njàpp neena na bu dee sikkin it da nga am sikkin bu dee dañuy xool ndax sikkin ba ci boobu sikkin bu rëy la bu tal wala sikkin ba bu ndaw la am ne bu woyof la daal neena na bu dee sikkin ba sikkin bu woyof la kon dañ naan la moom it day war nga xalil ko mooy nga dugal sa baaraam ca biir sikkin ba ba deru ba der ba tooy waaw waaw bu dee sikkin ba sikkin bu woyof la nga xam Euh, boo xoolee di gis der ba boo xoolee di gis deru deru der ba sikkin ba sax deru kii ba nee na kon bu boobaa nga xalil ko ak warteef lay doon ma xalil ki mooy nga dugal ci sa baaraam yi raxas ko ba der ba set nee na neen nag bu dee sikkin boo xam ne moom dafa tal bu dëll la bu rëy nee na kon bu boobaa dangay masaa ca kaw rek maanaam dangay raay ci kaw rek du jar nga di dugal sa baaraam yi di di di di kii Rahas der ba téere ko neen nag ci japp motax may wax bu dee ci japp lañuy ndax sikin ba sikin bu woyof la wala bu tàll la waaw bu dee bu woyof la ñu ne la nga dugal sa baram yi ci biir raxas bam set bu bu la ñu ne la ah masal ci kaw rek du ko jar waaw bu dee ci japp nak lañuy ñuy teqale amal xuslu bu dee ci sangu fa yu jëbu def na waral fi màcc ñom ñaar fi nga dana ñen nak bu dé sangu farata nak mom kenn wu sikim bu reuy ak sikim bu ndaw wa mom mom dang koy khalil man da ngay duggal ndox ma ci ba ñu yegg ci der ba ba der ba set wa nu sikin sikino nak sangu farata mom der bi lañ ñu lo mhm. kon fofu la yam ci ngenee ni ngay lay ñaan nga abonné ni rek nga koy défé moy non ngay sen nonu